bon salaamaaleykum mbokki auditeurs ngaay Ngaye Mékhé yëpp. Hmm. Euh, Ngaye FM. donc ñu ngi fii tey ci nekk invité Tafa ci émission bi donc ñu ñëw fi en tant que représentant des jeunes entrepreneurs yi am concept un micro un mac un masque bon kontaan nañ trop ci invitation bi dañuy bàyyi tuuti après bon ñu ñu ñu woyal débat bi quoi merci. Hmm. ok noonu lay demee kooku mooy euh, Ndiaga Cissé comme ni ma ko waxee euh, di représentant euh, Kadior Entertainment Kadior Entertainment comme ni ma ko waxee ay ay jeunes entrepreneurs ñoo groupe foofu noonu comme ni nga ko waxee un mec waa un masque incha allah après nañ dugg ci débat boobu pour wax ak moom léegi tamit dañuy ubbi micro Assane Momar Diouf comme ni ma ko waxee premier débat bi ñu ñaar ñoo ko animé léegi dañ koy bàyyi tamit moom mu waxtaan askan bi nga xam ne sam ñi ngi déglu couleur urbaine. sur la meilleure des bandes fréquence 93.5 Ngaye FM. bon salaamaaleykum maa ngi nuyu auditeurs yi bon di la remercier aussi si invi invitation bi euh, di di di remercier aussi. Diaga Diaga Cissé. Diaga Cissé euh, day day neex tout le temps ñuy gis ay jeunes yoo xam ne dañuy entreprendre euh, bàyyi lépp ne dañoom dañuy liggéeyal seen gox. maa ngi gis initiative am bi na si ngaay waa Mekhe waa yëpp jàpp pousse ko de l'avant parce que. initiative bi boppam la amee tamit aussi pour pour euh, rehausser image yu dëkkam. ok mais tamit euh, euh, comme par exemple ñu ngi ci mois de mai te ku ni première mai ni fête du travail bon feete woon nañ ko le le premier mai da ngay gis que ni comme par exemple chaque premier mai day am cahier de doléance day am kay kay de doléance bu nga xam peut être syndicat yeeg yeneen ak yeneen dañ koy mm-hmm. euh, kii après ñu jox ko après ñu jox ko euh, monsieur le euh, président ok noonu lay demee bon gis nañ que ni peut être mën na am convite bi moo tax ba gisuñu tamit bon loolu lépp wala ñaakul peut être ñoom bind nañ seen i doléance jox état léegi en tant que en tant que jeune entrepreneur en tant que jeune entrepreneur léegi yow lan ngay wax ci bés boobu noonu comme le premier mai fête du travail waaw bon merci ci question bi donc en tant que entrepreneur donc fête fête du travail donc moo nekk euh, jour boo xam ne tey jii donc dañ ko jagleel képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci dara que ça soit mu nekk ngay yëngatu yor sa fi bopp wala ngay jaay wala ngay kii fête du travail le genre donc cette année ci donc mën na ni dañ ko féete ak Covid 19 bi. bon peut-être ni ñu doon ko sentir nga xam ne ci réew mi doon nañ am ay activités nit ñi doon nañ def ay fêtes nit ñi doon nañ def ay défilés genre affaire yooyu noonu cette année ci amul quoi mais n'empêche nit ñi dund nañ ko nit ñi toog nañ seen kër yi nit ñi liggéey wuñu tamit jot nañ ci ci jour boobu am na ñoo xam ne profité nañ ci pour def des message de sensibilisation gën a nit ñi parce que actuellement lépp lu ñuy wax rek mënuñu épargner. Euh, feebar bi parce que feebar bi moo ñu moo ñu xëy na tey moo ñu moo ñu moo ñu jël ba noot ñu ci côté boo xam ne tey jii yu si bëri luñu doon def yoo xam ni talatuñ ko di ko def mais tamit n'empêche dinañ ko def en notre manière feete ko avec la famille bàyyi ñi nga xam ni employé yi nekk ci entreprise ñu dem seen kër toog gis seen i mbokk gis seen famille sensibiliser leen donc fet du travail noonu lañ ko dundee. donc je vous remercie. Hmm. ok léegi dañuy bàyyi tamit euh, Assane Momar Diop bu fekkee am na kàddu yu si sànni tamit mu wax ci. bon comme li nga wax rek fête du travail man dama ko dama koy faral chaque année même chose laay bind te chaque année même chose mooy am damay faral di wax ni fête du travail dans un pays où il n'y pas de travail maanaam dëkk bi ñëpp xam ne ni amul liggéey te comme ni nga ko waxee cahier de doléance chaque année ñu ngi koy bind ñun tey jii dañoo juddu fekk nit yi di ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy bind. kay de doléance pourtant doléance bañ ko yàggee wax toujours tout le temps même même même même même même même environnement la ñuy dund. parce que seeni syndicalistes yi fi nekkoon ñoo fi nekk. ay Mody Guiro ay. keneen ci ay dem Sock ay Demba Demba Sock même lobby ñoo fi nekk chaque jour bon comme situation Covid bi moom ñëpp la tënk. dañuy tere parce que ñoom li ñuy feetee fête du travail mooy chaque année syndicaliste dajale seen travailleurs yi ñu def ay marche donc qui dit marche di rassemblement donc. Covid bi moom tënk na ñëpp seen kër. ok nee nga Covid bi euh, tënk na ñëpp euh, seen kër euh, ku nga xam ne da nga daan xëy di dox sa tànk wala bu fekkee ne yor nga sa oto nga dem nga liggéey léegi mbas bi ñëw tënk leen ñoom ñëpp de telle sorte que tamit moom kenn mënul dem kenn mënul dem kenn mënul dikk. loolu yow na nga ko jàngatee comme par exemple euh, yow bu fekkee doon daan dem liggéey am na ñoo xam ne peut-être ñu ngi dem liggéey ba léegi mais am na ñoo xam ne peut-être euh, Covid bi yëpp dafa kii yow loolu loolu noo ko jàngatee ko nga xam da nga daan dem euh, di ñëw noo ko gisee si fête du travail parce que mun naan travail je crois mooy liggéey. mooy liggéey yow loolu loolu loolu nan nga ko jàngatee. xam nga feebar bi par exemple économie Sénégal dafa bëri ay secteurs. Hmm. mais boo xoolee feebar bi. ñaari secteurs yi laa gis ni la gën a impacté mooy hôtellerie restauration ak transport tey jii gis nga ni transport demul te transport tey jii dafa nekk euh, secteur secondaire day dundal ñu bëri te bu Covid bi tax na kenn demul kenn dikkul tey jii boo xoolee sax paas yi pour dem Dakar da ngay débourser dix wala quinze mille c'est cinq fois le prix initial. maanaam mais loolu comme par exemple côté paas yi. Euh, léegi bu fekkente noonu en temps normal. Euh, peut-être mën na bañ a yegg foofu mais loolu est-ce que tamit doonul lu nga xam ne tamit euh, riba la ñi nga xam ne ñi ngi koy def est-ce que doonul riba lu nga xam ne tamit au lieu ñu yërëm askan wi tamit euh, ñu yokk paas xam nga tamit dafa am loo xamante ni kër côté affaire de patriotisme la maanaam boo xoolee état bi teg na ay loi ne kenn warul circuler au-delà de yenn heures yi ba pare boo waree circuler da nga war a am autorisation laissez-passer man mii toog nii damaa war a liggéey mais maa ngi fi toog juste loolu. mais da ngay gis koo xamante ni amul laissez-passer mais day fexe ba dem ba jàll xëy na moom kooku moment bi mi ngi xalaat koomam mais xalaatul mi ngi lor. kii population population bi loolu côté côté côté comme côté patriotisme yow am na yoo xam ni même bu yombee si yow nga mun ko def yow yaa koy bañ parce que da ngay xalaat que yow benn acte nga boo def rek conséquence bi mu mën a jur mun na bëri te xëy na yow da nga ci doo ci bàyyi xel la nga ah, garaawul nga def ko. que déjà nga yokk paas xëy na ñoom dañoo yokk paas parce que dañoo limité nombre yi jël ci oto yi boo waroon jël 7 3 ngay jël xëy na manque à gagner boobu lañ jéem a yokk ci paas bi même loolu justificatif la mais loolu du du du yoon loolu moom du yoon. ok euh, noonu lay demee sànq euh, dafa am lu ma retenir euh, si li mu jot a wax dani moo ngi nii am na laissez-passer mais day obligé toog léegi yow loolu tamit yow noo ko jàngatee comme par exemple ñi nga xam ni. dañ daan xëy dem di liggéeyi léegi nag euh, Covid bi euh, ñëw ñu ñëpp mu tënkuñu mu mu tënkuñu léegi yow loolu noo ko jàngatee ak fête di travail beeg yooyu. waaw comme man lu ma lu lu ma la waxoon sànq rek donc Covid 19 lépp lépp lépp mu fi réew mi toll nii donc lépp c'est à cause du Covid 19. donc kii li mu li mu li mu wax ni mooy maanaam donc c'est un citoyen boo xam tey respecté na normes yi nga xam ne état teg na ko parce que tey jii su ne euh, nit ki warul circuler au delà de vingt heures ñu ni nit ki aussi warul dugg warul warul circuler tant que amul autorisation donc nit ñi nga xam ne tey jii ñu ngi utiliser autorisation yooyu di ci def trafic di ci dem di liggéey di nga xam ni tey jii donc ngaay rek déggoon nañ ci des cas yu mel noonu loolu ñu ngi doon ko la ñoo xam ne amoon nañ des autorisations di yeb ay 15 000 20 000 li dem a ñëw mm-hmm. donc loolu rafetul déjà aussi autorisation bi fan lay fan lay fan lay jógee loolu tamit war nañu remonter ba foofu tamit nit ñi naka lañ def ba mën a am autorisation yoo xam ne délai bi c'est illimité bañ ñëw di ci def des transport loolu aussi dañ ci war a wax parce que feebar bi moo moo nekk loo xam tey jii yow ku bu ko ko ku nekk jëlalee combat bi rek ni sa combat bi sa combat bopp la rek je pense que du ñu du ñu du ñu sonn te ngaay dafa ndaw. temps yële un ma woo ni ma frère ma ni ko waa fekk dama dugaloon benn article ci Covid 19 mun ma feebar bi xajul ngaay. pourtant euh, léegi dama lay rejoindre dama lay rejoindre si loolu nga wax noonu euh, parce que tamit euh, monsieur maa ngi gis mu publier. Mhm. que ni ngaay Carrefour la. Mhm. Carrefour la de telle sorte que maanaam bu fekkente ne da nga jógee Saint-Louis da nga fi jaar. Mhm. boo jëm Dakar da nga fi jaar boo jëm Touba. wala ay Mbaba garage yooyu yëpp da fi jaar kon c'est donc vrai. est-ce que gënuñoo waruñoo gën a yokk vigilance bi. Euh, de tell sorte que tamit pour gën a aar euh, askan wi. bon xaw ma nag ba xam tamit sunu euh, sunu hôpital bi. Mhm. équipé nañ leen. Mhm. de telle sorte que peut-être bu ñu amee yenn cas yeeg yooyu bon ñaanuñu ko yàlla. parce que ba léegi nii on touche mhm. suñu borom mi ñuy suturaal. amaguñ benn cas fii nii au niveau de Mekhe est-ce que waruñoo gën a. yokk ki gën a vigilance comme que tamit ngaay Carrefour la. comme nu nga ko waxee ngaay da ngaay dafa nekk dëkk boo xam ne instant yi dañ ñoo ndar képp li olof di wax ndar képp donc tey jii sooy xool dëkk yi nga xam ne dañu yëpp tey jii donc virus bi mu ngi boo demee Louga mu ngi fa boo demee Touba mu ngi fi Dakar mu ngi fi xam nga dëkk yi ñu tànc dafa nekk Carrefour boo xam ne tey jii booy dem Touba da ngay jaar ngaay Saint-Louis da jaar ngaay ku dikk Saint-Louis dem Dakar dafay jaar ngaay donc tamit kon ñun ñii jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk donc war nañ mën a am benn ay équipe am na combat bi am na fu muy toll jarul ngay xaar euh, état wala jarul ngay xaar gendarmerie wala kii defal la leen li mais jeunes yi nga xam ne tey ji nekk fi ñun comme la fois passée caar yi doon na ko wax war nañ mën am des comités yoo xam ne ñooy nekk si koñ yi di surveiller des numéros yoo xam ne dégg naa sax am na donc tey ji képp kuñ gis koo xam ne da nga jóge feneen nga ñëw ñu gars yi la loolu lañ war a def parce que tey ji nit ki waroo sooraalee que ni kii sama mbokk la wala kii sama xarit la ba nga ba nga ba nga ba nga jël loo xam ne tey jii attanuñ ko hmm. feebar bi attanuñ ko donc nañ jël mesure yi nga xam ne moom la ñu jox instruction yi waa kër docteur joxe ñu jël ko respecté ko bu ko defee tey ji euh, yàlla mën nañu dimbali épargne ñu parce que dégg nañ ko Sénégal yàgg na fi mais accès gu fi alhamdulilah accès gul ngaay on tous de boire te ñaanuñu yàlla mu agsi fi kon jeunes yëpp nañ yeewu ñëpp jël combat bi porté ko incha allahu rabbi yàlla dinañu suturaal. ok si comité euh, de surveillance boobu noonu. Euh, gis naa que ni euh, seen association boobu noonu mm. un mecquois un masque mm. comme ni nga ko waxee joxe nañ ay numéro yu nga xam ne peut-être euh, mm. dañuy si signaler képp ku nga xam ni amoo droit nga dugg nga nga dugg ci dëkk bi mooy comme par exemple nga jógee ci dëkk dëkk de telle sorte que tamit amoo autorisation nga dugg ci dëkk bi gis naa que ni côté boobu noonu yéen yéen a ngi siy liggéey waaw voilà donc loolu noonu donc j'ai Pape Pape Lamine Diop donc moom moo nekk ci euh, équipe de pilotage un mec waa un masque bi nga xam ne tey jii man loolu siise boobu laa yàqamti ñuy dugg si parce que loolu moom fi gën a indi. Mm-hmm. waaw donc am nañ ay numéro yoo xam ne gis naa ne joxe nañ ko peut-être loolu nekkul li nga xam ni un euh, con waa équipe pilotage un mec waa un masque ñoom ñoo ko joxe mais am na tey jii ñu nekk ci ngaay ñoo xam ne tey joxe nañ des numéro yoo xam ni tey jii lépp ñu gis loo xam ne. dëppoowul ak yoon wala képp koo xam ne ñëw na ci dëkk bi te génnoon na dem foo xam ne dégg na ni virus ba mu ngi fa bu ñu ñëwee ñu signalé ko donc numéro yooyu après nañ ko fi bàyyi bala ñoo dem gars yi gën a mën koo partagé. ok boo gisee lu tax ma koy introduire nii fi mu ne instant bi ñoom dañoo nekk ci euh, liggéey maanaam dañoo war a confectionner ay 1000 masques. donc loolu du liggéey euh, bu ndaw loolu tax ma bëgg koo introduire nii. Mm-hmm. tamit euh, ma bàyyi ko après euh, man ak Assane ñu continuer débat bi. Mm-hmm. léegi comme par exemple ci côté comité de surveillance boobu. ba xam mm-hmm. da ngeen am ñoo leen si lëkkaloo yi nga xam ne ñoom ñoo leen di jàppale ci liggéey boobu wala. Tafa feebar bi gis nga fi mu toll jaratul xaar kenn man li nga xam ne dama koy def pour man ko jariñ sama askan du ma ko xaar. yàlla dimbali na ma tey jii donc sama tur àgg na foo xam ne tey jii sama jëmm àggu foo tey ji maa ngi bindul tey jii maa ngi yor benn benn benn kii boo xam ne benn benn maison de presse boo xam ne tey jii tey su ma bindee au moins donc peut-être mille personnes dinañ ko gis donc foofu noonu mën naa ko utiliser pour divulguer des informations pour jàllale information yi nga xam ne tey nit ñi soxla nañ ko tey jii damay toog nit ku nekk hors de ngaay ñu woo ma ni ma kat dafa am ñu ñëw ci dëkk bi ñoo xam ne dëkkuñu ngaay mais dañ may woo ni ma dafa am ñu ñëw ci suñu dëkk. Touba lañ jógee wala dëkk bi lañ jógee def nañ fi deux jours du ngeen ñu si dimbali ngeen fexe ba ngeen mënuñ jàllale information wala ngeen wax wax ko commandant donc ñun ci fu non instant yi foofu lañ toll donc ñun bañuñu ko ñu meree suñu gisee tey ji loo xam ne dañ ko war a jàllale dañ ko war a wax pour nit ñi xam ko tey ji danger boobu noonu noonu nuñ ko mën a épargner nit ki ba mu sauver nit ñi sauver waa këram sauver famille am sauver sauver ñun dañ koy def bañ ñu ko ñu si mere ci instant boobu foofu lañ toll. ci noonu la ñuy doxee quoi. Hmm, ok léegi euh, concept un Mécois un masque mm-hmm. euh, nan na leen dikkalee comme par exemple mm-hmm. euh, gis nañ que ni euh, tout récemment bi nga xamee covid bi dugg na ci Sénégal mm-hmm. peut-être dañoo xooloon que ni masque yi day cher parce que sunu tantôt sunu débat bi passé waxoon nañ que ni masque yi am nañu ko commencé woon a yokk ci benn prix 700 ba 1000 francs gars di ci profité comme ni mu koy waxee rek mën nañ gars yi bëri jàppee que ni corona business la wala yeneen ak yeneen alors fi population bi dimbaleetul askan bi kon c'est anormal que ñu yokk euh, prix euh, masque yi bon léegi concept bi nan la demee ba xam dafa am euh, ñu leen ñu leen ñu leen jël ngeen liggéey lool wala bokk yéen yéen xool que ni fii réew mi toll ak feebar bi c'est normal yéen ngeen ngeen def action boobu nan la demee waaw ah, d'accord merci ci question bi donc tey jii lépp loo gis ci àdduna ci idée lay déparé mmh. lépp loo gis que ça soit li gën a li euh, projet yi gën a rëy ci àdduna bi kenn mooy toog wala ñaari nit toog mu nekk seen idée ñu développé ko donc concept bi man noonu la ma ñëwee dañu dama toog gis ni carrément ngaay nekk na dëkk boo xam ne Carrefour la nit ñi peut-être masque cent franc lay jar. Mm. mais am na ñoo xam ne ba léegi amaguñ accès ci masque yi amaguñ amuñu njëgu masque am na ñoo xam ne mënuñoo am masque masque wala masque yi ñu leen di may tamit day nekk masque yoo xam ne bu ñu ko solee duñ ko mën a utiliser mm. ko mën sol di ko solaat quoi donc idée bi ñëw. ma waxtaan ci ak ñi nga xam ne tamit ce sont des personnes yoo xam ne des amis d'enfance ñoo xam ne yàgg na ma ak ñoom lépp lu ma mos sumb dañ koy jël ñu porté ko ma waxtaan ci loolu loolu mooy équipe de pilotage un Mekowa un masque nga xam ne ñu ngi tomb ci un nombre de dix personnes wala onze. donc biñ ci waxtaanee ñoom ñu jël projet boobu def ko seen yëfi bopp gën ma koo bëgg lin siy daj man dajuma ko si. te wax dëgg yàlla bu dul woon ñoom projet bi tey jii du dem dara du si am. tey ñu ngi si liggéey bi projet 10 000 masques la ñu am sànq maa ngi dégg naan mille mais 10 000 am voilà. Mm. ok euh, noonu lay euh, demee euh, mooy wax képp ko nga xam ne instant bi yaa ngi jàpp 93 point cinq Ngaye FM yaa ngi déglu émission boobu ñu ñu naan couleur urbaine bu fekkente ne ba nga dugg live en direct mën nga composé 88 628 16 cinquante léegi ci confection de masques yooyu. est-ce Euh, ñi ngeen jël ay professionnels euh, qualifiés est-ce que def nañ euh, formation de telle sorte tamit ñi ngi respecté norme norme de confection masque yooyu noonu tamit ban yan yan yan artisan ngeen dajale système kii boobu noonu. waaw voilà merci Tafa donc tey jii projet bi comme lu ma la waxoon rek man dama am parce que dama yàgg a yëngatu ci affaire événementielle. donc tey jii kuy wax défilé de Modou Ngaye donc Big Modou ñun ñoo ko fi njëkk a organiser mu réussir macha allah donc ñu am des relations avec des stylistes parce que participer nañ au moins ci seen ci ci seen liggéey may na leen visibilité ba ni ñuy xam leen bi ñu amee projet bi aussi man ki ma ci njëkk a mooy Alioune Diakhaté mu yor entreprise bu ñuy woowee Empire donc ma wax ko ko expliquer ko moom tamit mu rafetlu ko il y avait aussi d' autres euh, stylistes yu yoo xam ne bëggoon nañu jël projet bi. mais tey jii comme ni nga waxee sànq ni corona bi dafa am business donc tey ñu bëri bu ñu dugg ci benn affaire peut-être business bi ak xaalis revenu yi ñu ci mën a am. Mhm. te ñun notre combat c'était pas pour dépenser di fay nit ñi mais liñ nar a fay nit ñuy jëlaat ko financé waat ko ci biir mu nekkaat des masques donc stylistes yi fay ñëw tey jii ñoom ñëpp. de passage maa ngi leen di nuyu parce que actuellement ñu ngi ANAMO on est en parfait partenariat en collaboration avec la maison de l'outil de Mekke moom moo ñu jox salle boo xam ne c'est bien équipé monsieur si de passage maa ngi koy saluer boo xam ne ñun ñëpp foofu lañuy ñuy dajee à de 15 heures chaque 15 heures bu ñu jullee ba pare koor gi ñun ñëpp foofu la dajee si li si ñëw ñoom ñu tëj seen atelier ñëw accompagner ñu si ñu mën a ñaw di ñaw. ñi mën a dagg di dagg ñi nga xam ne mënuñoo dagg di jël di rangeler di paqueter. mais est-ce ngi respecté norme euh, kii norme yi comme norme de confection masque yi est-ce ngi koy respecté ak tamit euh, euh, kii tissu bi ñuy utiliser. Mhm. est am na qualité ban façon tissu la ñuy utiliser pour confectionner masque yi. waaw boo gisee tey masque bi ma sol nii ñun ñoo ko defar donc tissu tissu yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser. Euh, tissu la yoo xam ne tey jii avant ñu koo jël dem nañ ba nga xam ne waxtaan nañ ak euh, médecin yi ba nga xamal nañu carrément lii nii mën na masque mu nekk loo xam ne tamit ñu ko fee def mais peut-être tey ñu koy def dañ ciy business mais ñun business suñ ci hygiène bi ñu ngi koy respecté bu baax parce que foofu noonu am na lépp boo duggee wala ngay dugg ci biir da ngay raxasoo da ngay laal gel soo laalee gel ba pare foofu noonu ci ay euh, dra yu set lañ lal ñi nga xam ne foofu la masque yi war a dal. su lalee foofu ñu jëlaat ko balaa ñu koy paqueté ñu tàngalaat ko ba mu tàng ñu paqueté ko ku nekk ñu jon la jox la tey ji hygiène yi ñu ngi koy respecté bu baax tey parce que tamit mënoon yi da ngay xeex benn feebar ba pare di yokk feebar bi tey jii feebar bi tey jii ñaanuñu ko yàlla mais su amoon ci ay masque donc waxaale wuñ ko dañuy lor doomu aadama yi. ok euh, léegi euh, comme par exemple tamit euh, parce que ku ni ku ni projet ça veut dire que sa su ça suscite des moyens. Mhm. léegi yéen nan ngeen def ba confectionner moyens yooyu ba xam da ngeen joxe benn numéro Orange Money. Mhm. pour nit ñi dugal xaalis wala yéen fonds propre ngeen di demee wala ba xam autorités yi ñoo leen subventionné nan la fa demee. waaw tey jii xaalis peut-être donc amuñu ko li ñu soxla woon lépp mais bi ñu départ équipe de pilotage bi ñu waxoon ñun ñoo jël suñu propre moyen ñu jàllale suñuy 1000 francs suñuy 2000 suñuy 5000 déjà pour tàmbali si bi ñu si tàmbalee donc ñun defar lu tolloog 1000 masques après xam nga sénégalais daanaka donc projet bu ñu leen ko waxee tant que tàmbaliwul lu jóg ñu si bari duñ sawar. après ñu joxe woon des numéros orange yoo xam ne benn bi Pape Lamine Diop la benn bi man la ñu ñooy doon numéro orange money ñu doon ci dugalal ay 1000 francs des fois ngis ku la dugalal 1000 francs ku la dugalal 3000 ku la dugalal dara ñu jël loolu génne ko jëndaat ko ay kii. Là, maintenant, les politique politiques, donc, euh, on a eu la fois passée la visite de l'honorable député Morkan Ndiaye, ñëw na fa ñëw na ci atelier visité na ko defal nañu ay promesses donc ñu ngi koy saluer de passage monsieur le maire de la ville de Mékhé monsieur Euh, jox nañu matière première boo xam ni donc ça va tourner autour de mille masques yoo xam ne tey jii matière première bi moom moo ñu ko promettre donc am na loo xam ne jox nañu ko ci matière bi mais am na lu des te je sais que dina ñëw parce que donc moom lu mu wax dina ko def donc en plus aussi am nañ ay homme politique tamit ak ay bonne volonté yoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk am na ñu participer donc je vais pas citer de nom sinon dañuy dañuy gudd. mais am na tamit ñoo xam ne dig nañ ñu ku ci mel ni moor Diop songu daan am na lu ñu dig lu ñu promettre te ñu ngi koy xaar aussi. Mm. ok léegi ba tey est-ce que numéro Orange yooyu ñu ngi fonctionné léegi euh, pour ñu euh, pour ñu euh, maanaam comme ni ma ko waxee sànq tamit comme que da war a dem tamit yégle liggéey bi. Mm. léegi pour ñu pour ñu tënk la foofu noonu tout le temps ok mm. léegi ba xam ba xam numéro Orange Money boobu. ba léegi mi ngi dox tamit est-ce que tamit euh, euh, maanaam est-ce que yegg ngeen euh, ci kii bi ngeen soxla woon comme nombre bi ngeen soxla woon hmm. te tamit distribution bi tamit kañ ngeen koy commencer ak noo leen koy noo leen koy defee ci biir dëkk bi. d'accord merci merci Tafa question yi c'est c'est pertinente donc euh, numéro yi sama numéro la muy 77 610 71 11 ak numéro Papa Lamine Diop 111 11 91 donc moo ni moo nekk numéro yi nga xam ni. tey ci leen ñuy dugal euh, Orange Money yi euh, fi ñu toll ci liggéey bi déjà donc pare nañ mille mille masques yoo xam ne defar nañ ko ba pare déjà instant ñu ngi ci production cinq mille masques yoo xam ne ñu ngi koy dagg actuellement te bëgg nañ ko terminer euh, peut-être ci biir semaine bi semaine bi ñuy dugg nii quoi à de lundi ba nañ terminer cinq mille masques yi te feebar bi nekk na feebar boo xam ne toogul di xaar kenn tey ji boo toogee nii da ngay defar. Euh, quantité bu bari pour mën ko séddale peut-être di nga di nga am ñoo xam di nga leen lor wala ñoo xam ne waroon nañ teel a jot jotuñu si moo tax bëgg nañ ci biir semaine bi ñuy dugg ni aussi ñu tàmbali distribution yi distribution yi aussi ñu ngi xalaat nan lañu koy defee ak équipe de pilotage bi soit dañuy dem ci quartier bu nekk chef de quartier bi ñu xool nombre de personnes wala nombre de kii kër ya fa nekk ñu jox leen seen masque wala ñu def tête à am na ñu ñu proposé ni leen def leen porte à porte parce que peut-être tey bu ñu ko joxee chef de quartier yi peut-être ñëpp duñ ci jot ñu ci war a jot donc ñu ngi xool naka lañ koy distribuer donc euh, di lancer un appel pour ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi nekk ay jeunes yor ay atelier mën a ñëw masque su fekkee tëj nañ seen atelier comme que dafa am benn décret bu wàcc ñoom lañuy teel a wàcc donc ñu ñuy ñëw di ñu fekk ci anamo jàppale ñu ci liggéey bi ñu liggéeyandoo àndandoo xeexandoo daanandoo corona. ok donc le mot de la fin tamit euh, euh, le 3 mai coïncidé ak euh, liberté de la presse. Mhm. léegi yow en tant que un homme de presse yow lan nga wax ci loolu. donc waaw lool tamit rafetlu ko parce que donc presse moom ku wax presse ni liberté tey jii un de presse wala tey jii maison de presse warul nangu ñu koy noot dafa war a jël ki nga xam ni donc di di def éthique ak déontologie bañ a xaar nit ki ay revenu ci moom pour mu mën a def liggéeyam. te tey ji booy xool tey ji booy presse sénégalaise bi euh, ñu ngi leen di sant ci loolu tey ji am nañ liberté d'ex d'expression ñu ngi bien vrai que nag tey jii loo loo gis di nga gis ay des personnes yoo xam ne tey jii dañ ko utiliser pour tey jii benn nit mu noot ko di ko liggéeyloo nga xam ne lu mu bëgg mu jàllale ak lu mu bëggul lu jàllale mais liñ li li ñu jox ci fet du travail bi donc ñun rafetlu nañ ko ñi nga xam ñu ngi ngotoo ci presse. donc di encourager képp koo xam ne mi ngi yëngatu ci ci ci ci communication ci journalisme wala ci lépp loo xam ne day joxe information ñu ngi leen di remercier di leen wax ni fi ñu jàpp foofu la nañu liggéey xam ni tey jii àdduna mënul dox sans communication mënul dox sans information. Mm.